إذا لم يكن نحو الحرم حدول ألا عاصم ليلى الولادة حسبة إذا لم يكن نحو الحرم حدول ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah mbokk yi bu ngeen déggee loolu mooy xew-xew bi nga xam ni mooy dingiraay Gadiaga fan mooy dingiraay dëkkub Seex Sakoki fan mooy dingiraay dëkkub sëñ Matar fan mooy dingiraay mooy dëkkub alaaj Tijaan fa tubaarakallaahu ak ay rakam yi nga xam ni fa tubaarakallaahu ñoo nekk dingiraay waaye ci ndigalul sëñ Bay Si Mansour ci ndigalul ki nga xamante ni bii mooy sëñ Muntaqa seen xarit seen sopp seen mbokk ñu bokk lislaam wàcc si nag ba ci kan ki nga xam ni nag mooy xalifa bi muy Serigne Abbas Gadiaga yàlla na fi yàgg te wér ak fa tubaarakallaahu ay rakkam ak ay doomam yu góor ak yu jigéen fa tubaarakallaahu le 11 mais ñu du ko yëgal Sénégal gépp bàwunu kenn di sant yàlla na daaw fii la ñu toog ci kanam xalifa bi Serigne Abbas Gadiaga ibnu Serigne Makhtar Gadiaga woote fi woote bu tedd bii nga xamante ni woote jëm ci yiw la woote jëm ci jàmm ak xéewal muy lan màggal juddu yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dingiraay fan lay xewee ci département de Bambey arrondissement de Baba Garage sëriñ Abbas di ci woo mboolem jullit yëpp kuy wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah di ko tàmbalee nag barakallahu ci xalif général des Tidiane sëriñ Babacar Sy Mansour ak mbokkam mu baax ba sëriñ Muntaqa al Bachir xalif général des Mourides bis bi am benn jagle bu particulier boo xamante ni barakallahu sëriñ Abbas ak mbokk yimu mu àndal yépp dañ koo jagleel ku ko yayoo lool muy Cerno Madadi Taal xaadimul omar yi Cerno Madadi ibnu Cerno Muntaga barakallahu ci taxawaayam waaye nag ci mbokk gu yàgg nag ci diggante dingiraay ak waa kër Cheikh Omarul Fuutiyu sëriñ Abbas nee na woote bi da koy tàmbalee ci famille Baye Ousmane gajaga ca Ngajaga mi nga xamante ni baay la wayjur la sëriñ la mbokk la waa Ngajaga yëpp ñu ngi leen ci woo waaye di ci woo nag famille Demba Gajaga ca Malika sëriñ Abbas nee na mi ngi ci woo famille waa Ndoob Gajaga yëpp ak xalifa ba di ci woo famille Babacar Gajaga ak famille Roqaya Gajaga ñoom ñëpp ñu ngi leen ciy woo di ci woo tabaarakallahu ñi nga xamante ni ñoom kenn du leen fàtte ndax bis bu nekk ci gàmmu Dingiraay lu nekk daañu ko bàyyi ñëw waaye lu am daañu ko indaale ci njëkk ak teraanga ku mbokk muy nag association des imams du département de Pikine e Kër Massar ka ca jiitu ca département de Pikine muy Serigne Jibril Diop ñu ngi koy woo imam Jibril Diop ak ñi mu bokkal liggéey ba yëpp Kër Massar imam El Hadj Malick Niang ñu ngi ko ciy woo moom xam na yoon wi yàgg na ko teewe sëriñ Abbas nee na mi ngi ciy woo ñi mu bokkal département bi ak région de Diourbel rawatina nag waa famille maam Thierno Kandji ka nekk ca bopp ba di sëriñ Habib Kandji ak sëriñ Omar Tandian ci lu yàgg sëriñ bi nee na bàyyiwul kenn rawatina nag fédération de daïra Tidiane yi nekk ci arrondissement Baba Garage ba ci kër Samba Kane ñun ñëpp ñu ngi leen ciy woo sëriñ Abbas nee na fàttewul sëriñ Mourtala Amar ca gàdd yàlla sëriñ Baara Laxaat Mbacke waaye sëriñ Mudu Mbacke si mi ngi ko ci woo di ci woo sëriñ Assane Seck xalifa cene ba waaye nag ku kenn dul fàtte muy sëriñ Ousmane Ngom bu Paal bu Mam Rawxaan Ngom kon mbokk yi sëriñ bi mi ngi ciy woo ñëpp ñu jël kaddu gi nag baarakallahu jox ko ki nga xamante ni mooy président Mouhamadul Kabir Gadiaga mu sànni ci li nga xamante ni moo di wooteem jërë ngeen jëf alhamdulilahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi fi nekk yëpp ñu ngi leen di nuyu di jiital di nu ci nuyoo bi suñu xalifa Serigne Abbas Gajaga di yëkkati kàddu ci turu jàppoo liggéey dingaraay wa ala rasiha alxaaji Góora Dia mu war a sànnanteeg yéen kàddu yi muy sànnanteeg yéen ci programme bi ngir yàlla may ñu fekke ak tal ba ñu dajale ci bis ba ñu daje ci bis boobu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ren comme daaw programme bi si ñaari fan lay tëdde aljuma la ñuy commencé incha allahu bokk jullandoo juma bokk jullandoo juma bu nu pare ñëwaat takkusaan julli takkusaan pare wadifa buñ fa jógee ni tuut ñu dem xadaratu jumaha bu mag comme niñ ko defe woon daaw incha allahu ci su bëgg di samdi bi 10 heures ñu commencé jàng kaamil yi ànd kook waa daara Njaay nin ka daa defee naka jekk bu nu paree dellu ci kër ya waaye di def mise en place réception bi 17 heures incha allah bu ko defee réception bi commencé 18 heures ba keroog ñuy julli timis bu nu jullee timis ba pare dellu ci kër ya dix heures ñu war a jàng guddi gi danan teew te muy eh, seen duut kenn ànd ak njabootam ñoo nooree animé guddi gi bu ko defee ñu nekk ak mbokk yi ba ca kanam bu ko defee xalifa xalifa bi génn bu xalifa bi génnee nag ñu commencé gàmmu gi ak ñi nga xam ni war nañu waxtaani guddi gi incha allah bu ko defee noonu lañ ko bëgg a doxale ñuy woo ñépp ci àjjuma ji incha allahu taala ndax nag sas wi leen sëñ Abbas joxoon bay nañ ko bayin wu rafet ba bu ñu àggee ci jumaa ja juma ja fas nañ ci yéenee julli jumaa ñi ngi ciy woo ñépp laata xadara bi moo tax sëriñ góor a barakallahu tudd liggéey bu am solo boobu kon yi jataay bii xam ngeen ni bu ñu fi toogee góor baax na jigéen baax na sëñ abbas bu wootee doom ju tedd ji di taawam bi soxna Fatou Gadiaga woo njabootam ñu dikk teew ñu sekk fekk si fii ci yaraax ah saa yu nekk nag bu ñu waxee mu ni man dey dama am loxo am làmmeñ am tànk ñii ma jaboote doy nañ ma kon soxna faatu ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal fan wi soxna faatoo ngi woo jigéen ñépp nag moo tax mu ni ma paap joxal ma maam Diop kaddu gi mu wool ma jigéen ñi mu war a woo ak mbokk yépp ñu teewe gam comme niñ ko waxee woon daaw rek programme bi moom mi ngi noonu daal waa Dingiraay daal li ma leen di ñaan mooy li nga xam ni taxawe woon nañ ko daaw ren ji nañ taxawee nu ëpp noonu waaw ndax dañuy ñaan at mu jot day gën a yokk kon nag nañ yokk taxawaay bu baax a baax dingiraay moom kenn du leen jàngal dalal gan kenn du leen jàngal tamit nu ñuy dënale ak nu ñuy seddalee mm-hmm. ndax loolu defe naa ni moom seen domaine la ñu ngi woo képp ku nekk ci tund woowu nag képp rek ku nekk ci tund wi ku lim juum wala doo matal bàyyiwuma kenn bàyyiwuma benn dëkk ñëpp maa ngi leen di woo nañu ñëw jàppale ñu ci bës bi kenn ku nekk am sa bës nga am bës bi mooy suñu bés dingaraay mooy suñu mooy suñu fépp mooy suñu lépp bu loolu weesoo ñu ngi woo suñu mbokku mbul yi di woo suñu mbokku mbaylaar yi di woo waa gàndal di woo waa laala di woo waa sugeer waa kër mataar bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu kenn kenn kenn ñu ngi woo ñëpp lépp lu ma fi wax nag ci kàddu soxna Fatou Gadiaga laa ko mm-hmm. waxe mooy sama mag moo ma jël jiital ma teg ma ci kanam nit di woo soxna Aïda Mbodj mm-hmm. ci guddi gi ak Mame sey Ndiaye honorable député waaw ñu ngi leen di woo bàyyiwuñu kenn daal bàyyiwuñu ñenn. waa jigéen ñi dingiraay ñu ngi leen di eh, sant bu baax na kuy génn ñëw na nga sol sa lu weex kuy génn ñëw na nga sol lu weex te ngeen teel a ñëw balaa xadara bee commencé ngeen ñëw toog bu ñuy commencé ci seen kanam bu ñuy tëj ci seen kanam. waaye nag mbokk yi du ñu daaneel mukk programme bi te fàttaliwuñu waat mbokk yi ni njàngum alquran mi incha allahu taala ginnaaw bu xadara bi passé ci ajjuma ji bu ñu xëyee. ñiy jiite daa njàngum alquran mi mooy daaray waa daaru Ndiaye dëkkub sëriñ Alsey Ndiaye di mbokkum sëriñ Makhtar Gajaga ci dëkkandoo ak yàgg lool baarakallaahu ci njiitul sëriñ Ibra Ndiaye sëriñ Abbas nee na na ko daan defee rek ñu ngi leen di xaar ñoom ñoo yore kaamil bi incha allahu taala ak ku ñëw topp ci seen ginnaaw. Ah, ci ndigalu suñu maam Alhaji Abbas Gajaga tey mi nga xam ni moo nekk ci kanamu njabootu. Euh, xadra bu tedd bale ca dingaraay di xadrata al muxtaariya at tijaniya at dingaraay yiya mooy woote gàmmu gu mag gi nga xam ni su fekkee magul ci gàmmu yi ci réew mi itam bokk na ci ci mag nee na mi ngi woo jeunesse su tariqa bi yëpp surtout ñi nga xamante ni nag ñoo aju ci dingaraay nga xam ni seen maam yi ak seen baay yi ñoo yaakaaroon Cheikh Sakkoke yaakaar Cheikh Mokhtar yaakaar Cheikh Alhaji Tidiane nee na bisu ñaanu kaay la nee na dëkk famille yi composé dingiraay yëpp nee na mi ngi leen ci woo nu àndandoo teeru gan ñi tatagal gan ñi. moo tax kenn mënut a wax gàmmu dingiraay te woo ci la président de la république son excellence Bassirou Diomaye fay ñu ngi koy woo di woo premier ministre di woo ki nga xamante ni mooy ministre des microfinance et de la solidarité. di sëriñ Aline Dione bu Bambey di woo soxna ay Aïda mbooj ak honorable député soxna Mame Say Ndiaye mi xam ni mooy borom dingiraay ñu ngi woo Assane maire de Bambey di woo mbooleem autorité administrative yi nga xamante ni ñoo nga département ba Bambey ba région de Diourbel bàyyiwuñu kenn sëriñ Abbas nee na bis baa ngi noonu kuy wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi gàmmo gi sa la waaye sëriñ Maxtaar Gajaga nag waxoon